couvre-feu bi bokk na ci loo xam ne jaaxal na askan week marché yi nga xam ne tëj nañu ko jamono joo xamante ni ñu bëri ci askan wi yoru ñu yoruñu xaalis liggéeyuñu loole lépp ay jafe-jafe la yoo xam ne ñenn ci askan wi daat nañ koy rotal ci yéen kaay gi di réew mi quotidien journal bi du source a mu ñu xamal naa ñu li am ba des dal mooy woppi coronavirus ji daat nay bëri lool fi nga xam ne mooy Touba ak Mbàkke ndax nag centre de traitement bu Daaru Marnaan jamono ji maanaam lal yépp fees na dell ba nga xam ne sax ñoo ngi def li nga xam ne maanaam mooy yàkkale jëlee ay malade Touba di ko indi Ndakaaru yéen a kaay gii di las mu ñu xamal la ñu Touba kay jamono ji ab bomb communautaire la la tax nag journal bi wax ko bokk na ci cas communautaire yi nga xam ne sa sunu xëyee muy yokk Touba yéen a kaay gii di Vox Populi mu ñu xamal la ñu woppi coronavirus yi daat nay wat fi nga xam ne maanaam mooy Thiès ndax am na ab taalibe boo xam ne amee na ko fa waaye nag Tiwaawoon foofee tamit am na ku fa amee woppi coronavirus journal bi mu ñu xamal la ñu ki nga xam ne nag moo ko yóbbu Tiwaawoon moom Touba la koy jëlee benn marchand ambulant la xam ne ab moto jakarta la fay lu toll ci trente mille francs mu jaar ak moom Bambey jaar Touba ba yóbbu ko Tiwaawoona yéene kaay gi de la turbine mu ñu xamal naan ñu woppi coronavirus ci moom nag ma ngi wër li nga xam ne mooy barrières yi en tout cas li nga xam ne moo am ba des ak li ñu nemmeeku mooy ay moto jakarta yoo xam ne ñooy jaar ci àll bi di dem région ak région te loole nag bu ñu ko dëkkalul jàngoro ji dafay gën di law yéene kaay gi de la quotidien mu xëy dikkal ñu ci ay cas yoo xam ne dañu leen a quarantaine ci ay hôtel xëy nag di wax jafe-jafe yi nga xamante ni ñoo ngi kay daal di dund yéenekaay gii di réew mi quotidien mu xëy di ñu xamal nañu comité de suivi bi nga xam ne moo aju ci force covid 19 bi maanaam kuréel gi nga xam ne ñooy saytu lépp loo xamante ni jëm na ci xaalis bi ñu teg ngir xeex woppi coronavirus toll nañ ci trente personnalités secteur privé bi ñoom nag dañoo désigné président Mbagnick Diop mi jiite MEDES ngir nag mu daal leen fay teewal moom ak Bokar Si yéenekaay groupe promo consulting bi mu ñuy xamal nañu yóbbu nañ fa président Mbagnick Diop boo xam ni ab médiateur de l'ombre la ba pare nit la koo xamante ni ku am influence la yéen kaay gii di libération mu xëy dikk ci force Covid 19 bi ak waa Benno Bokk Yaakaar ñoom nag daat na ñuy joxe lu toll ci quatre-vingt-dix-neuf millions yéen kaay gii di ñu fekk fa ñoo xamante ni seen xel màcc na jëm ci wàllum gel alcoolique yi nee na am na ci gel yoo xamante ni dafay wàññi ngóor ak góor te am na si gel yoo xamante ni dafay yàq ëmb te nag jël gel ak saabu loolee digaluñ ko kenn maanaam da ngay jël gel wala rek nga bàyyi loxo jël saabu waaye nag ñoom ñaar soo leen boolee mën naa andi ay jafe-jafe yéen kaay gi di Sud Quotidien mu ñu xamal lan ñu woppi coronavirus ji daan nay xaajale Afrique yéen kaay gi andi na ci ay leeral yéen kaay gi de Les Échos mu ñu xamal laa ñu nag imam ak ulema yu ñoom nag seen bëgg-bëgg mooy couvre-feu bi nag maanaam door vingt une heure ba quatre heures du matin waaye nag loolee journal bi nee na Macky Sall da leen kaa daal di lànkal yéen kaay gi di réew mi Quotidien mu xëy di ñu xamal lan ñu fagaru moo gën faju loolu nag wolof réewam Sénégal ak Covid 19 bi dalul xel benn yoon ndax lu toll si juróom fukk ak juróom ci ay kaa communautaire am na fi maanaam cas communautaire yi ma ngi jaaba jonge ci réew mi jamono ji sax mën nañoo wax ne musiba ba kumba gi maanaam ma ngi sunu kanam yéen kay gi de la témoin mu ñu xamalaan ñu démb rek lu toll si juróom-ñett ci ay cas communautaire daat nañ koy gis yéen kay gii di grand place ak réew mi ko dëjee ñu fekk fa màgget Ndong mi nga xam ne moo jiite Synpics section soleil moom nag daat nay wax na sax bay benn syndicaliste moo tax nag ñoom ñu daal di koy porte plainte ñaari plainte yéen kaay gi du l'observateur dikkal ñu ci loo xamante ni lu doy waar la ca diwaanu Touba nee na nag foofe ay gendarme ñoo daje ak policier door ko ba maara day taali ñu jël ko mënate ko daal di koy yóbbu yéen kaay gi di record ñu fekk fa waa ministère bi ñu dénk wàllum tàggat yaram nee nañu ñu nag Matar Ba jamono ji wërul kenn koo xamante ni bëgg na mu remplacer Alioune Sarr yéen kaay sunu lam moo ko xëyoon bind ni ki démb nag tey ji daal na koy gën a dëggal stade yéen a kaay débat du vendredi bi nga xam ne saa su nekk daf koy amal dafa xëy nag samp ab laaj ne ndax Aliou Cissé du ki ëpp wërsëg ci footballeur yu Sénégal yi Amara Traoré ak Salif Diao ak Abdoulaye Diaw daan nañu si joxe seen xalaat